yàgg-yàgg dal kon fii lu ne fekk nañu fi am na ñu fi nekkoon démb di bajantu ci kaw askan wi anañu ñu fi nekkoon bërki démb di bajantu ci kaw askan wi anañu kon Macky sàll bu bajantoo ci kaw askan wi tey jii duñu saf tey jii duñu ko faale dañu koy wax di ko ñaan na delloo ci xelam na delloo si sagoom mu wàcc Guy Marius Sagna mu wàcc askan wi bàyyi Guy Marius Sagna mu ñibbi këram di ko waxal ni Macky Sall ni baayu Guy Marius Sagna saraxewul doomam ndayu Guy Marius Sagna saraxewul doomam askan wi saraxewul Guy Marius Sagna kon li daloon Omar Blondin Diop 1973 fii ci Gorée bu dalee Sagna Macky na ko xam ni palais de la République am boobu du ko jël génn chers compatriotes les larmes du père de Guy Sagna ont ému le monde entier Les larmes du père de Guimari Sagna ont touché le profond Sénégal. Les larmes du père de Guimari ont touché tous les cœurs sincères. Les larmes du père de Guimari ont touché toutes les consciences justes. Les larmes du père de Guimari constituent un avertissement solennel pour notre pays car l'humiliation, les larmes des humiliés constituent une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Les larmes des humiliés sont plus mortelles que l'éruption d'un volcan dans un pays. Les larmes des humiliés sont plus graves que le déluge parce que les larmes des humiliés peuvent engloutir même les innocents. Les larmes des humiliés, nous précipitent dans la nuit, qui nous précipitent dans le chaos, qui nous précipitent dans l'apocalypse. C'est pourquoi cette bataille n'est plus une bataille politique depuis les larmes du père de Guy Marius Sagna, c'est une bataille morale. une lutte morale, une insurrection des consciences, une insurrection de l'humanité, une insurrection contre la violence. Cette lutte est devenue une lutte morale parce qu'elle est une lutte contre l'injustice institutionnalisée, contre la violence institutionnalisée, contre la domination, contre la persécution, contre toute forme de domination dans notre pays. Cette lutte est devenue une lutte morale parce qu'elle est une mobilisation pour la justice, une mobilisation pour l'égalité, une mobilisation pour la paix, une mobilisation pour la stabilité. Mes chers compatriotes, dans cette affaire, Guy Marie Sagna ne peut pas être malheureux. Vous savez pourquoi Parce que nous pouvons lire dans l'Évangile Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils luttent pour la justice. Guy Marie Sagna lutte pour la justice. Guy Marie Sagna ne peut pas être malheureux. C'est la raison pour laquelle nous disons Macky Sall na dem bàyyi ñu ci jàmm ñu dund ci jàmm gi Mari Sagna dellu ci baayam dellu ci njabootam wasalaam. merci gi Mari Sagna dellu ci ndeyam ak baayam dellu ci baayam dellu ci njabootam dellu ci waa Sénégal jërëjëf professeur